bismillahi irrahmani irrahim walhamdulilahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana muhammadin alamin wa ala alihi wa sahbihi wa qadimihi wa ummatihi wa man tabiahum bi ixsanin ila yawmi ddin bokk yépp maa ngi leen di nuyu di delloo nuyoo ba gën a rafet ci nuyoo yi kilifa gi fi toog di sunu mbokkum taalibe Seyid Muxtaar Ba teewal fi njiitul réew mi wax fi tabarkàlla kàddu yu rafet yi mu wax ku ko dégg xam ne da cee bokk te feeñal la ci yéenam ak mboolem ñi mu àndal ba tey sunu mbokkum taalibe eh, maam Thierno Dieng ak mboolem ñi ñu àndal noo yi koy noo ngi leen di sant di rafetlu teewaay bi mel na ne njiitul réew mi moom ci boppam teew si na fi kenn ci yéen bu teewoon nu xam ne teew na kon wane ne xolam teew na fi waaye noo ngi leen di yóbbante ci moom itam ay cant ci bis bii taxawaay bu rafet bi mu ci rafet bi mu ci taxaw biñ ko tàmbalee ba nëgëni yi ñi ko fi nekkal bokk yi tudd nañu ko sëriñ Moustapha junj na ko kon du jar ñuy jaaraat ci lépp waaye da ci am lool nag lu mu néew néew fokk ñu tudd ko ndax waxtu wi daaw dafa nekkoon soxla yoo xam ne kër gépp ko soxla woon ñu doon ko sàkkul sunuy bokk di sunuy bokki taalibe ñaar am na forage bu courant murit nagani si daaw ñu ngi koy fàttali booba bënnoon na te satudoo ba àggagul te léegi mbiram li arab yi wax xabari kaana la mooy weesu na lépp sotti na ba ñu koy jëfandikoo yàlla lewet ci ñoom amoon na it beneen bu ci topp ñu doon ko fàttali itam aju woon ci ministre hydraulique mooy forage bu Sam Thialé yaakaar naa ñëpp xam nañu waa Sam Thialé seen kóllëre ak sëñ Abdou Khadir du ne ñëpp mooy seenub sëriñ waaye ay taalibee ma nga fa dëkk waaye waa dëkk bépp taalibe sëriñ Touba lañ ak fuñ mën di aju te fu yitte amee ci yoon wi kenn du leen ci man kenn du leen fa jëkk te kenn du leen fa mujj kon nag ñoom it seen forage lañ ñoom ci seen bopp xamal nañ ma ne bënn na ba satadoo ba ña koy ña ngay def fondation ba yooyu yaar nag ginnaaw daaw dana toogoon fii ñu di ñu ne ma naa ko fàttali tey la foofu la toll war na ñu biral ko ndax sant des koy biral ndax ni ma xamee mbir mi man maa ko war a jottali waaye sëriñ Moussa sax junjoon na ko bu dee fii ci Baxdaad it ngi doon fàttali mbirum ndox ma euh, ba tax na euh, tubaarkàlla Moustapha Dieng mi nga xam ne moom la kilifa dëkk bi sunu sëriñ Cheikh Mountakha moom la dénk mbirum ndox mi dikkal na fi boppam xam naa njëkkoon na fi dikk sax fekku mu fi waaye ñëwoon na fi bañ gisee ban jot cee waxtaan ba wax ma yéene yim ci am te jot na cee sax amal dara ba nee na ma dana fexe ba biir màggal gi ndox ma du manqué waaye dana taxaw ba Baxdaad jot ci ndox mi ni ko barab bi tuubaay yëpp jote kon yooyu mënees koo ñàkk jotal ak lu demee nekk poste de santé ba moom itam ministère de la santé ñoo ko financé waaye euh, maire Touba maire bi ñoom itam gàttañ lu wuñu ci xam nañ ne ndimbal na ci fekk loxoy borom ba tax na ñoom it fa état bi yem fa ministère bi yem tàmbalee nañ fa ba lépp euh, tuwakkal aw na yoon boo gisee nekk ñu ñu jagleel ci euh, Muxtaar Cissé directeur sénéral ak tudd la ko waral mooy maire bi lañ man mooy tabax bi ak def équipement yi waaye nag courant bi moom Mokhtar moom ci boppam moo ko coobarewu yaakaar naa Amsata Sall liggéey na ci lu bari diggam ak moom ba tey sax yàgg nañoo tudd ne busta euh, Bagdad aaje woon na poste bu courant ndax dooley courant ba def dafa demoon kër gi la doon alimenté la yaatal na ko nag léegi bu baax a baax a baax kon nag mu ne suta ñàkk wax ne Mokhtar siise jàpp ci liggéey bi kon daal ñu ngi lay yóbbante ci président suñ cant ak suñ gërëm yii yi tey kër gi la ñu tegoon yi càkkute fi ci sama loxo kon nag bu sottee ak fu mu mën di toll daa ko leeral nit ñi ñu ngi koy xamale daal ci gàttal ministre Mansour Faye ay ndawam dikk nañ fi waaye nag ñu ngi koy xamale lépp loo xam ne ci loxoom la aju woon daal dara dara desu ci matal na ko ba mat sëkk loolu moom mën nañ koo seere ma jàll nag kon ci sunu bokki bopp yi te ki nekk ci bopp ba di suñu mag di sunu sëriñ di sunu lépp Cheikh Mouhamadul Mountakha tubaarkàlla ni mu jilifee dëkk bi yilifi ko kër gi ni lañu boole ci njaboot gi lañ ko jox sunu lépp mu bàyyiwaat nu boppam te noonu it nu joxaat ko ko addiya noonu la deme waaye seetaanul kenn ci lenn naka jëkk ku ne xam ne diggam sëñ Abdou Khadre daana jóge fii di ko gane ji mbul sëñ Moustapha mi ngi ko daan gane jee poroxaan waaye mbul sëñ Muntaxa la fa daan fekk yaakaar naa ci fan yu néew yu mujj sëriñ bi woo na ko mook sëriñ Abdou Latif bàyyi sëñ Jili Mbàkke mi yendoo leen fii doon leen teral te loolu feeñal la nit ñi seen diggante moo taxoon mu def ko booba tey ak seegut kon li nu séq ak moom ak li muy jëflante ak ñun jataay bi xat na ba desul mën tudd lépp waaye daal noo ngi yeesal àndandoo woon nanu dem ba ci moom yeesal sunu njëbbal ne ko góor ak jigéen ak mboolem ko aju ci kër gi ñëpp ñi ngi ci ginnaawam lum digle ñu def ko lum tere ñu bàyyi ko te yàlla nañu ci sa bu baax moom ci boppam loolu lañ ciy wax te buñ ko tuddee sax sañoon nañ cee yem ndax yoonu murit benn bopp la boo tuddee sañ Muntaxaa tudd nga ñëpp waaye mëneesu te ñàkk kon ñu tudd ko ba bëstal ko ñu wax ne daal mbooleem mbokk yi ñu bokkal bokk gi Mbàkke dañuy wax maharam waaye maharam am na doomi bàyyi mi ngi tudd Muxtaar dafay yàggut waaye ak njabootam ak njabootu maam maharam dañoo jaxasoo kon daal ñi bokk ci maaram ak ñi bokk ci moxtaar doomi baayam bu baax ba ñépp koo ci teewul sa jëmm sa ndaw teew na fi mboolem ñi ñu bokkal bokk gi waa mbusoobe waa aafe waa ciyeen waa njaayeen ñépp ku lim nag da ngay juum waaye daal sañoon nañoo yem ci suñ Muntaxa ndax ñii may wax ñëpp ñu ngi ci ginnaawam ñu ngi ci ronam waaye ñu ngi sant ñëpp kenn bàyyiwuñu ci suñ bis bi kenn bàyyiwuñu ci seen sunu jën yitte yàlla nu leen yàlla fayal ngeen ji pay fii ci àdduna ak ci àllaaxeer te yàlla na bis bi yàgg dellu si nu yokk yàgg ñoom ñu yàgg ko yëg yàggu nu ci fekk si nu yàgg ko ànd ak ñoom te lépp luñ ci góobe yàlla nañ ko bokk ñun ñëpp ci barkeb Seexul Xadim mboolem ñi nga xam ni si ñooy yoonu Serigne Touba di taalibeem yu mag ya seen ta seeni seeni doom ak seeni sët ak seeni taalibe ak ñiñ bokkal yoon wi ñëpp kenn di desut mënesut a toog di waxtaane yoonu murit ci bis nag ko maam Thierno waxe woon tubaab ba ba mu ne ko bindal ci ñetti fan ay mbiram mu ne ko lool kenn mënu ko xanaa da ngay toog ba ma noppi mbiri sëñ Tuubaa kenn mënu koo lim ci ñetti fan loola ba tey rek loola sax daa tey kenn ci comme yaroon wala muy ku ñu tudd di ko tudd mënesut a waxtaane mbiram ci bis rek sàkkaan ak moom ci boppam kon daal euh, ca kàddu yi cant yi rek ak ngërëm li mooy li nga xam ne ëmbal nañ ko ñëpp bàyyiwunu kenn ñi nga xam ne ñoom lañu bokkal réew mi bokk ñoom lislaam muy waa këru diine yi ñoom ñëpp ku ci ne teew si nga fi tuddoon nañ seeni tur xataayu jataay bi ak waxtu yi ajjuma dafay tënke te nag bëgguñu cee gàttañ lu mbaa ñuy gàllankoor kenn te nit ñu amee nañu sunu kersa waaye kon nag dañu bëgg rek ñu waajal ko ndax buy jeex fekk kenn ku ne mën a am as waxtu soo ko mën a waajale mën a dem ci jumaa waaye sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp mbooleem këri diine fu rek gox bu ne rek am na ko fa bàyyi ko tudd nañu seeni tur kon nag ñu ngi doyloo tudd googu ñu leen tudd waaye ñu xam ne suñ xol euh, fas na seenu cant te koy seeral yàlla di ko seeral euh, Serigne Touba ak Cheikh Abdou Khadim mi boole ci moom kon li des ci duñu fàtte itam nag ñi nga xam ne ñi ngi yëngut ci wàllu àdduna mbooloo nekk ci seen ginnaaw ñuy wut amaguñu mooy ñi leen di waaye opposition ñooñu ñoom itam mel ni su tudd ñëpp niñ ko waxe woon daaw waaye am na ku nekk ci ñoom tey mag am lum mu seq ak kër Sëñ Abdou muy maître Abdoulaye Wade yónnee si na fi wax nañ ko Papa Diop mënees ko ñàkk a tudd ndax taxawaayam ci kër gi ak ak ci cëram Idrissa Seck ba tey noonu Pape Diop ki euh, Abdoulaye Wade ñi ko fi teewal bokk na ca maître Madické Niang Mamadou Diop Decroix di wëlëri ci kër gi di fi di fi mbokk naka noonu Omar Sarr ñoom ñëpp ñoo àndandoo ñëw fii ak Euh, tuddoon nañ seen tur ñoom ñëpp Moustapha Guirassy ak Moussa Tine sunu xarit lool ak euh, soxna Ayda Mbodj moom it ab taalibe la ñooñu ñëpp ak seex Diop doom la ci kër gi di taalibe ci kër gi doomi sëñ Mat Diop xam moom itam teew na fi ci ñiy yëngu ci euh, googu wàll ci la bokk kon nag ñi ci des kuñ tuddul tam na nga xam ni fàtte la te yàlla gis na la te gisu sunu borom gi mooy li am solo ndax moom rek moo amee pay ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm maa ngi eh, rafetlu it teewaayu sama wëllëre eh, eh, Sayid Ibrahima Fall mi ngi teew dent ne ak sëriñ Sidi agsi na maa ngi koy nuyu di sox nuyu soxnaam yëgalu nañ ma ne danañ fi agsi nii mu ko defe maa ngi leen di sant di feddali kóllëre gi bu baax di ko rafetlu li des ci kàddu yi nag rek mooy baat yu néew yoo xam ne ñi ma bokkal kër sëñ Abdou Khadir gi ñu jox ma seen kàddu te jiital ma ci seen bopp te lu may def ñu dàq ma ko te ëppalewu ma ci kenn ci ñoom ci sëriñ bi ma am kàddu yoo xam ne rek danaa leen koo wax kàddu yu cant moo ci jëkk ay cantu kàddu yu ngërëm waaye nag ak kàddu yu dénkaane maa ngi nuyu sama ñi mboolem ñi ma bokkal sëriñ bi dale ci sëriñ Moustapha mi ba ci Cheikh Mouhamadul Bachir dale ko ci soxna Moomi ba ci soxna Aminata Lo mi caat mi ñépp ku ci ne cër bi nga ma jox yàlla xam na ne boo gisoon sëriñ Abdou Khadir doo ko mën a jox lu ko ëpp loolu maa ngi koy waxte lu ma gëm la di sàkku ci ñëpp ñu ñaanalal ma leen ak mucc ak dolliku lu ma nekk ñanga ca te lu ñuy def danañ ko sellal defe ko pastéef man nag ngor mayuma may nëbb njekk inna hadaynaahu sabila ima shakiran wa ima kaforun kaforun jooju du weddi mooy wedd mooy bañ a sant loolu nag kon maa ngi leen di sant bu baax di leen xamal ne du màggal gi xew-xew yi yëpp ak lépp lu ma nekk luy sama yitte ku ma ci fëgg sëñ Moustapha mii li ma ko mage moog sëñ Fallou bari wuñu waaye ku ci ne tey lii yaa koy defi doo ci teg baat te may nañ ma ko ci seen bopp ba duma leen euh, lu ci dara lone naa ko bëggee laa leen koy waxee dafa tollook ñoo ma euh, sédd cër boo xam ne ñoo ko coobare waaye man xañuma leen ko ci seen bopp sama bopp te sañuma ko waaye ñoom tey bu lu guddi guddi lu mu teel teel ku ma ci fëgg ne ma seex jógal defi nangam du ci teg baat ndax seen baay laa yaakaar seen maam laa yaakaar kon daal loolu laay wax ci ñoom di leen ñaanal bu baax di sàkku ñépp ñëpp nañ ma leen ñaanal bu baax nañ mucc nañ am jàmm nañ am wér waaye na ko mbooleem bokk yépp am na ko jullit yëpp am bokk ci taale bi nag yéen itam nu barkeelu ci waxi Seex Abdul Ahad yéene ñi nga xam ne bu ngeen fi nekkutoon kenn du fi jaar kon kenn du dem ngeen des liggéey bépp muy mbokk muy taalibe feeñal nañ seen ak aju ci seen Abdou Khadir ak dëggu ci seen digg ak moom ay lu mat weer a ngi nii kenn ci ñoom yéen doo tuddul sa kër te danga fa guddee dem lépp bëgg bis bi mel ni mu war a mel ba yàlla tubaarkal la xam naa ñoom seen yéene buñ sañoon mu raw fii waaye ñun liñ ci gis kawe na suñu njort kon nag noo ngi ñaan di jottali ko Cheikh Abdoul Khadir yàlla na leen yàlla defal payga muy gu jot sëkk goo xam ne buy dikk dana kawe seen njort ni seen jëf yi kawe sunu njort wala mu raw ko ndax yàlla mënuñoo natt fu kàttanam toll li des ci kàddu yi mooy rekk nag dénk leen tuuti te dénk ko sama bopp nañu fettaliwaat laxasaay bu baax te góor góorlu ci jaamu yàlla googu nga xam ne moom lañu sunu kilifa gi santoon nu góorlu ci bu baax jaamu yàlla ku ne xam na ne jëf la ak bàyyi jëfe ndigal yi bàyyi tere yi dañ koy wax saa su ne jëfe ndigal yi yomb na moo gën a yomb bàyyi yu ñu tere yi te bàyyi yu ñu tere yi moo gën a mën a musle ci jëfe ndigal yi boole ci ay tere nañ wattandiku tere yépp buñ ci xeeb benn loolu nañ koy fàttaliku bu baax xam nga lu toll ci weer rek réew mépp ñi nga am tiitaange naan taw bi taw bi taw bi yaakaar naa nun ñi ñëpp sunu maas gi yëpp fàttaliku bi ñuy am di ko dégg fekk nanu fi sax xëy na waaye dañ daan wax atum sëñ Basiiru ma ñetti fan yi wax set ca la doog a tawaat tabaarkalla at ma barkeel na yàlla na ko mii raw euh, waaye bii sax xam nga dem nañ bañ daanaka juróom-ñetti fan yi ndox mi soo ko ubbi dafa am tuuti nag lu ñu war a bàyyi xel foofu euh, jullit yàlla sax tënkul kenn boyalut kenn kenn ku ne ndigal yi ak tere yi ci ñëpp la jëm waaye jullit ñi ci am luñ jegoo xam nga am na fu mu koy wax ci suuratu Hud auzu billahi min ashaytaani rajim wa yaa qawmi istaghfiru rabbakum summa tuubu ilayhi yursili samaa alaykum midraaran wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wala tatawallaw mujrimina na di jéggulu yàlla bu ko defee dana leen dolli kàttan dana it yabal asamaan si muy leen di sot muy muy joox joox bu bari mooy nii muy def fan yii rek bi bi sëriñ bi def jëfee ndigal fa tabaarakallaahu yàlla na yàlla yàggalub taxawaayam yàlla def na ci sutura bu baax te yàlla bu mu bàyyi benn tool te melut na ko borom bëgge ci barkeb sëriñ bi waaye nañ xam ne kon tuub googu lu nu war a sax la ndax amaana buñ ca saxoon dinu fàttali boppam mën na cee mën nañu cee bañ a fekk te nim nuy fàttale boppam saa su ne dana metti seex moom seex saalihu mbàkke mas na koy am na ci waxtaanam yu yàggut yu mujj yi mu di ko wax nan fàttaliku yàlla bala mu nuy fàttali boppam ndax yàlla ku muy fàttali boppam dana dem ba jàpp ne moom dong la bind yaakaar naa nag weer ci ginnaaw ñëpp xol yu bari delluwaat nañ bu nu bu nu ca tënk woon nag fàttali nu boppam googu dunu ci fekk te metti woon na ndax njàqare la woon ci ñu bari ci ñëpp man de booba nekkuma sax ci réew mi waaye saa yu mu woote ñu ne ma tawagut ca la sama xel daj bis bu ma mës a xëy bu ne maa ngi wax laa di jéggiwaaleel ñëpp te ku ma nekkaloon it te sañ la ko wax wax naa la ko ndax ne la lii daal yaakaar naa ñàkkun lu nu def ndax gëj na fi kon nag nanu uh, delloowaat sunu bopp ci yàlla te li nga xam ne ñu baax ñi nga xam ne ñooy mag ña toppoon sëriñ Touba xam yi ndigaleem xam yi tereem te bàyyi woon ko seen bopp ba mu def ci ñoom lam ca def lam nekkoon képp moo nuy jig tey moo nuy jig ëllëg mooy jig sunu njaboot ëllëg na ñépp delluwaat ci sunu borom jaamu ko te jaamu ko na ñépp delluwaat jox suñu bopp sëriñ Touba te bàyyee ko suñu bopp képp ku yore liggéeyam bii di njiitam nan lay déglu loo digle ñu def ko loo tere ñu bàyyi kenn ku muy teg ci barab bii ne yaay jiite sama liggéey bi te xam ngeen ne lu mu bëgg lu ne wama abaahu yaa baahu wa yama wama yaa baahu abaahu loolu la wax lu mu lu mu bañ yàlla bañ lekk ko lu yàlla bañ mu bañ lekk ko kon loo gis mu am fi rek daa neex sëriñ Tuubaa kon nag euh, nan góorgóorlu ci loolu bu baax beneen laaya bi ma leen ci dolli rek tëje ko mooy wala wanna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alayhim barakatin min as-samai wal ardi loolu jafe na jafewut ndax nun nag yàlla jox nañu mën naa wax junniy tegtal am nañ ko ci ne yàlla am na ndax ñu baax ñi ñu nekkal ñu jox ko seen bopp guddi ak bëccëg te duñ ci gàttañ lu wenn waxtu gis nañu ko waaye lam leen jaral ak lim leen jural lépp kii la danaa tudd nag kii nga xam ne tey moom lañu ñu ab jataayam sëñ Abdou Khadre xam nga tey tàng na lool climatiseur yu am doole mi ngi fi woon waaye benn boo xamante ni bi tàngoor wi dikk na sëñ bi xelam naan naa jëfandikoo sama moroomam bindeef ngir tàngoor wi dañ maa ngi ñaan ci tàngoor wi lay wax nun noo ko naan te noo taal seralukaay waaye xelam du ko daj amul lenn lu mu bàyyi woon ci mbindeef boppam yàlla la daan delloo lépp fa toog naa fii bis mu ne ma am naa weer de tey woo xam ne nelawuma ci guddi te tàngoor wi rekk ko waral de waaye moom loolu la ko daan faje yàlla rek la bàyyee léppam kon nag nan ko nanu jéem a bu mënunoo mel ni moom waaye nanu roy ci moom ndax dégg nañ ay waxam dégg nañ waxi bokkam yi ak waxi magi taalibe yi lun ci dégg loo dégg ñu koy digle jàppale ne yaa tax ñu koy digle loo dégg gis koy tere jàppale ne yaa taxoon ñu di ko tere aaya boobu suñu borom daa wax ne bu fekkoonte ne bii e, dëkk ahlul qura sax moom far xariya bu dee ci luxal arabiya dañuy wax mooy dëkk bu ndaw mooy tax kon mooy baykat yeeg sàmm yi fiñ dëkk waaye nag e, ba tey xariya mën naa dëkk dëkk bu mag Tuubaa gi xariyatu lañ koy tudde te dëkk bu mag la Madina la ñuy wax dëkk bu mag waaye loolu ci istilahaat yu mujj yi rek la waaye dafa wax ne suñ gëmoon yàlla te ragal yàlla ngëm gi am na waaye ragal gi ak ak bayliku gi ak yàlla daf lay yeexe li nga def nga mu mel ne dalaa jig tekkiwul ne dalaa jig amaana sax muy fitna ndax buñ dajaloo ba mu bari su yàlla dee indi nattu mbaa mu lay fàttali boppam dana metti lool kon nag nañ dellu ci nañ nañ góorgóorlu ci ragal yàlla ragal yàlla daraje yi ci nit ñi am du tolloo fattaqullaha mastataatu waaye ñenn ñi def la ittaqullaha xaqa tuqeetihi am na ñu ca àgg am na ci ñu ñu ngi ci def seen kéemtalaay kàttan yàlla nag boo defee li nga man la ca des mu àggaleel la ko kon daal loolu laay wax nit ñi nañ koy nañu delluwaat di tuub ndax aaye boobu lim ci lim ci wax mooy bu ngeen gëmoon yàlla te ragal ko xéewal yi ak ay barkeem dana leen dikke ci wet gu ne jóge ci asamaan ak ci suuf asamaan si lin ci miin nii mooy ndox mi waaye am na yeneen ndox ndox du ndox rek mooy dundal gàncax bi jant bi mënu caa ñàkk oxygène bi mënu caa ñàkk bu dee suuf si it xam ngeen ne lépp njariñi suuf si ñëpp ko xam kon nanu góorgóorlu ndax yàlla loolu mu nuy dël ci aaya boobu nu mën caa jot te Sëriñ Tuubaa fàggul nanu lépp loo xam ne nag gis nañ ko wa ma asaabakum min musibatin bi ma kasabat aydikum wa yafu an kasiri daa wax ne lu leen lu ngeen lu leen ma mën a dal ci musiba seeni loxoo ko fàggu maanaam yéen a ko def yéen a def la tax mu dal leen te sax yàlla dana jéggale lu bari doog a indi tuuti lu mu rëy rëy rek xamal ne wa yafu an kasiri la wax kon nag nanu góorgóorlu bu baax rawatina nag eh, gàddu ay àq gàdduy àq àq yi ci sunu boroom xam nga yàlla moom moom amaluñ ko benn njëriñ ma saatoo ko kenn ci waa kër sëriñ Touba muy wax am kuy sip ab unk naan ko man daal sëñ bi bëgguma unk unk daal xawma ko yàlla doon bindee mu ne ko ah diw yàlla amaluñ ko njariñ de moo noo ko unkayam fa moom rek ca saasa moom dafa daal di tawxiit ji dafa dikk loolu la ko daal wax kon amaloon yàlla lu lu ko unk jëriñu dooma aadama jëriñu ko lu lu nit lu ko ëpp moom moo ni jariñ noon noo koy jariñoo ay àq yiñ koy ameel mu jéggal na ko weef ni ci moom tooy te ubbi na bunt yu bari yoo xam ne boo ko defee mën a rafet njort ci ne yàggal la jéggal na la waaye lii sunu doom ji doon wax sëriñ Mbàkke mat na bàyyi xel mooy àq ci sa digg ak sa moromum jaam ndax ba tey loolu it am na lum nu ci digal ruxsa la ci bopp mën na la caa génne ndax jullit boo taxaw ci moom walla gor soo taxaw ne ko ah baal ma àq bu dee koo xam ne nii dafay taral ba ne loo ma def ba ne ma jéggalu nga ne ko ah lu mu mën di doon rek damaa bëgg nga jéggal ma ko am na lool gor soo ko wax xolam dana ko wallu ndax dana bëgg yàlla jéggal ko su boobaa nañuy balantee àq am nay jamono waxtu wu ne ñu di ko wax ci ginnaaw julli juróom yi ba mujj ñu nit ñi miis ko ba di ko def di ko fooyee moo taxoon ñam fekke eh, xam li nit ñiy wax ñu soppi nañ ko daan defee dañuy toog ab diir bañ fàtte ku njëkkee sëriñ bi neen nañ jéggalu te balante yàq te sàkk sarax waaye nañ xam ne loolu ci bis bu ne la war ci bés bu ne la baax des ci war a sax kon nañuy wattandiku bari na loo xam ne siitam réew mi maa ngi koy laabire ñépp kenn ku ne sa aada ji lislaam fekke te bàyyeelu ko jeneen waru ko gën ci yow li nga xam ne jigutoon sa maam boo koy def amaana du la yaakaar naa am na jamono yu yàgg ba ci Senghor du woon wante nag ku gëmoon aada la am tëgg dañ ko daan tere bu nawet ñëwee xam nga ab sëriñ moom day wax nañ bàyyi tëgg mi ndax lépp loo xam ne boo koy def am nga lu ko gën a baax ci yow war ngaa dem defi ko ñoom dañ koy tere waxtu yëpp waaye nag ginnaaw moom daa jiite woon réew mi te mënut a digle mënut a tere nit ñi liñ bëgg lépp am na waxtu waaye bu ma saan ñëw dañuy interdit bu fi kenn tëgg ñiy tëgg làmb ñii lu mën di doon rek nañ xam ne loolu jigut maam yi daal bañ nañ ko loolu nag aadala la du du diine waaye aadala waaye aadala joo xam ne si genn kilifa diine mës sa wax nit ñi du aada kon daal nañ ko nañ ci nañu delloowaat suñ bopp ci yu bari yi ñu roy ci tubaab bi tubaab bi am na yooyu war nañ leen caa roy ndax fañ jaar ba seeni raw to ak si fi ñu toll loolu uh, roy leen ci wàññiwu dara waaye na fekk muy loo xam ne du yàq suñu diine waaye du taxit nu nu bàyyi suñu bopp loolu moom maa ngi koy biire suñu mbokki Sénégal yi yépp ndax nag uh, réew mi nag bu tollee fii kenn ku ne booy wax ñu lay déglu war ngaa wax la nga xalaat ne buñ ko defee dina gën a baax ndax sénégalais boo gis rek ëmbal na yiw moroomam jullit boo gis yéene na boppam yéene na mbokkum jullitam lam yéene boppam kon noonu foofu nun foofa la nekk boo gisee nag nuy wax di ko maasale ñëpp dañ ñoo jox seen bopp bokkoonu defoonu moo tax ñu sañ a wax ak ñëpp ci googu wet ndax loolu nag day loo xam ne bu ko ñii defee ñii ñii fu doy buñ piit ñax boobu dana lakk gu tooy ñun ñëpp ñooy maase rek ci tënku ci te euh, te góorgóorlu ci topp yàlla la wax ci foofu maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal bis bi yàlla nañ ko yàgg fekke yàgg koo ànd ak yéen gan ñi ñëw noo ngi leen di ñaanal yàlla nañ delloog jàmm fekk fa jàmm yàlla leen jàmm wuti ci njaboot bi ba ba ñuy dellu te yàlla na jàmm topp ci suñu xew yi ak yi ci kanam yépp maa ngi ndokkeel ñëpp di leen gërëm bu baax waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf Mbacke léegi kon dañuy maase. ci tàllal sëñ Maamun sëñ bi nee nga ñaan sëñ Moodu Maamun mu amin amin Mbakke communication bi rafet na sëñ Saliou sëñ Moodu Abdou Khadir lañ ko dénkoon waaye lépp jag